Diaz yow yow Serigne Moustapha Sy du la recevoir parce que warkat nga traître nga Diaz bëggoo kenn yaa ngi dégg Diaz réew nga ah Diaz amoo yar Diaz yow Ousmane Sonko moo la gën palmarès Sonko reyagu fi nit Sonko liy neex sénégalais yi rek la daan wax ndeysaan mbëbët gi mu amoon ci sénégalais yi rek wóor na Rasulullah moom rek la ko sénégalais yi toppee woon mais jaas yow xamadi nga réew nga amoo yar sëriñ Moustapha si du ko ndaw ci réew mi xam na la bu baax xam na ne yow traiteur nga doo ko gis doo ko teg ba ndax sëñ bi moom xajul ci ay bojo bojo wax dëgg fa yàlla ñun xam nañ ko capitaine moomu sax doo ko gis parce que capitaine xajul ci yow waaw yow daal nekkal traître rek topp ci ginnaaw Macky Sall mu lay diri ci réew mi te nga génne ci Serigne Moussa Fass may wax ngay neexal naan maa ngi nuyu sama papa bokkoo ci géew gi te bul ñu fontoo sëñ bi Ousmane Sonko la bëgg